ñu ngi toog ci kanami mbooloo moo xam ne yàgg nañ fee toog yàgg nañ fekk suñu kilifa ñu ngi teew fekk suñu kilifa mu ngi teew suñu yaakaar ci yàlla. suñu yaakaar ci yàlla. suñu njiit ci ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. booba nag mag ñi ñoo fa daan teew. booba nag mag ñi ñoo fa daan teew. topp ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. radiyallahu anhu. ñoom nag seen liggéey lépp ngir yàlla la ñoom ñooña nag seen liggéey lépp ngir yàlla la ba yàlla jël leen ci mbaaxam ba yàlla jël leen ci mbaaxam fekk seen jihit yaa ngi fi des fekk seen jihit yaa ngi fi des nañ doon xàndeek baay mi ngi fi des nañu doon xàndeek baay mu ngi fi des baay jiite leen baay jiite leen yar leen yar leen tarbiya leen tarbiya ba ñoom ñëpp ñu xàmmee lu yàlla ak lu dul di yàlla te sëñ Baye Niass wax na fii ne te sëñ Baye Niass wax na fii ne koo xam ne koo xam ne moo la jiite moo la jiite yóbbu la ba nga xam ne xammee nga wax yu jëm ci yàlla ak yu jëmu ci yàlla yóbbu la ba nga xam ne yow xammee nga wax lu jëm ci yàlla ak lu jëmut ci yàlla moom kooku moo la moom ci boor bu ne kooku moo la moom ci boor bu ne kooku moo la xam ngeen ñu toog nag ci seen gannaaw ñu toog nag ci seen gannaaw war leen a roy ci nañ doon liggéeyalee yàlla. war leen a roy ci nañ doon liggéeyalee yàlla. ànd ak suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. ànd ak suñu sëriñ ba moom mu wax nag gërëm leen. ba moom mu wax gërëm leen. te yaxal ko ci këyit. te yaxal na loolu ci këyitam. te yaxal na loolu ci këyit. kon ñun suñu bëggee liggéeyal yàlla. kon ñun suñu bëggee liggéeyal yàlla bëggee liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñun ñii suñ bëggee liggéeyal Mawlana Cheikh dañuy seet ci ñooñu àndoon ak moom dañuy seet ci mag ñooñu àndoon ak moom yal na leen yàlla fay yàlla fay yaa jëmmal nañ jëmmal nañ wattu nañ wattu nañ sellal nañ sellal nañ wane nañ wane nañ xamle xam xamle nañ yëngatu nañu yëngatu nañ ba waxtu jote ba waxtu yëngatu jotee ba waxtu yëngatu jotee lañ yëngatu nañ tekk nee nañ tekk nee nañ tekk ba waxtu tekkeeral jotee ba waxtu tekkaaral jotee amul dara seen seen dund amul dara ci seen dund lu mooy gërëm loona yàlla lu may gërëm loo yàlla. ñu leen di ndokkeel. ñu ngi leen di ndokkeel. ñu leen di ñaanal yàlla. ñu leen di ñaanal yàlla. ñu ñaan yàlla itam. ñu ngi ñaan yàlla itam. mu teg ñu ci tànk góor ñooñu. mu teg ñu ci tànk góor ñooñu. ñu liggéeyal yàlla. ñu liggéeyal yàlla. na ko mag ñi doon liggéeyee. na ko mag ñi doon liggéeyalee. sama bopp laay dalee. ne ci boppam lay dalee su ma toogee fii ne su toogee fii di am lu muy wax di am lu muy wax sëriñ Baye Niass moo dem sëriñ Baye Niass moo dem moom la bàyyi wax na moom la Baye radiyallahu anhu wax ne moo ne ci bopp taalibe yi moo ne ci bopp taalibe te moom defu ko fi yàllaa ko fi def te moom defut ko fi yàllaa ko fi def léegi nag jàmm bu xeebu bi mu ngi wax ci baatam. ne léegi nag jàmm bu xeebu bii mu ngi wax ci baatam. ci ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahim. ci ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. yal nañu yàlla saxal ci loolu. may dénk sama boppam. ne li muy dénk boppam. balaa balaa daraa xew. nañ jàpp na Mawlana Cheikh Ibrahima mooy suñ kilifa. nañu jàpp na Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu mooy suñu kilifa ñun ñëpp. mooy suñu sëriñ. mooy suñu sëriñ it. moo yar suñu mag suñu bàyyi. moo yar suñu bàyyi. moo yar itam. moo yar itam. yaakaaruñ ci yàlla mooy moom mu taxaw. yaakaaruñ ci yàlla lu mooy moom mu taxaw moom dafa wax ne mooy suñu bunt ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom dafa wax ne mooy suñu bunt ci su ma sañoon man ne bu sañoon moom ñëpp topp ko ñëpp toog topp ko topp ko di ko déglu di ko déglu lu mu wax ñu def ko lu mu wax ñu def ko lu mu tere ñu ba ko lu mu tere ñu ba ko. suma ma sañoon moom loolooy xam su ma sañoon loolooy xam. bu sañoon ne loolooy xam. Mawlana Cheikh Ibrahim. Mawlana Cheikh Ibrahim. moo ñu tax teew fii tey. moo ñu tax a teew ci barab bii tey. ñun ñëpp nag bëgg nañ ko. ñun ñëpp nag bëgg nañu ko. waaye xamuñ nuñ koy toppee. waaye xamuñ nuñ koy toppee. loolu moo ñu soxal. loolu moo ñu soxal. may xoote. ne dafay xootee taalibeeg soppe taalibeeg soppe kum mën a doon ak kum mën a doon nga ñëw ñu topp Mawlana Cheikh Ibrahim nga Ibrahim Niass radiyallahu anhu amut bu kenn foog lu amut Mawlana Cheikh Ibrahim mooy suñu tëriñ Mawlana mooy suñu sëriñ. li ma laaj Abdoulaye doon wax ci moom laa koy wax. ne li maam Alaaji Abdoulaye doon wax ci moom la koy wax. maam Alaaji dafa doon wax doon wax ne. ku bëgg foo joxoñ jant bi mu fenk. ku bëgg foo joxoñ jant mu fenk. dee ko joxoñ ci penku bi. dee joxoñ ci penku bi. man nag ci loolu. ne moom nag ci loolu. duma wax ne. dafay wax ku bëgg loo wax ñu def ko. ku bëgg wax ñu def ko. tegul ci waxee El Hadj Ibrahima rek. tegul loo wax ñu def ko. loo wax ñu def ko. soo foogee leneen. soo foogee leneen. Ibrahima de du bokk moom. mii day bokkut. moom laa bëgg. ne moom la bëgg. moom laa gëm. ne moom la gëm. moom laa hóolu. ne moom la hóolu. moom laa yaakaar. ne moom la yaakaar. moom lay topp. ne moom lay topp. loolu lay def. loolu lay def. ku bëgg mu ànd ak yow ci loolu. ku bëgg mu ànd ak yow ci loolu. ku bëggul nag. ku bëggul nag. bu ma la juree. bu la juree. wala ñu jural ma la. wala ñu jural la ko. ak koo mën a dox. ak koo mën a dox. noo mën a mel. noo mën a mel. foo mën a ne. foo mën a ne. man génn na ci. moom génn na ci yow. loolu la bëgg ñëpp def. loolu la bëgg ñëpp def. yéen may bokk. ne yéen ay mbokkam. fii mooy dajewaay. ne fii mooy bërëb bi dajewaay. ci ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahima. ci ndigalal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu. muqaddam yëpp nga ngi taxaw. xam ngeen muqaddamam yi de. xam ngeen muqaddamam yi de. niñ ko màggalee. ni ñu ko màggalee. niñ ko wegee ni ñu ko wegee niñ ko xóoloo ni ñu ko xóoloo niñ ko yaakaaree niñ ko yaakaaree niñ bañee wut ak moom niñ bañee ku bëgg a dem ku bëgg a jub topp leen ku bëgg a dem ku bëgg a jub topp leen ñoom bàyyi gërëm na leen moom ñoom bàyyi gërëm na leen yal nañu ci yàlla boole yal nañu bi yéen taalibe yi yéen taalibe yi. maa ci biir. ne mu ngi ci topp Mawlana Cheikh Ibrahim. suñ ko defee. suñu ko defee. noppalu. noppalu. ñëpp lay xoo. ne ñëpp lay xoo. soxna. soxna yi. doom yi. doom yi. ñëw leen rek ñu ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim. ñëw leen ñu ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu bii nag. ne pays bii Mawlana Cheikh Ibrahim la. pays Mawlana Cheikh Ibrahim la. radiyallahu anhu. radiyallahu anhu. moo ñu tax a jóg. moo ñu tax a jóg. moom la ñuy moom la ñuy xool. moom la ñuy déglu. tribune bii. bi bii ñu toog tey. soo ko fi gisee tey. ne soo ko fi gisee tey. balaa nga ko fee gisaat. at mi dafa jeex. at mi dafa jeex. ba mu dellu si. ba mu dellu si. Mawlana Cheikh Ibrahima moo tax. Mawlana Cheikh Ibrahima Niass moo tax. radiyallahu anhu. radiyallahu anhu. may woo ñëpp. ne mu ngi xoo ñëpp. ñëpp lay xoo. ne ñëpp lay xoo. bàyyiwuma kenn. bàyyiwut kenn. jamono ji nag. jamono ji nag. dafa bëri ñuy foog la xamut. dafa bëri ñuy foog lu xamut. wërsëg yi dafa yaafim ne. wërsëg yi dafa yaafim yi dafa bëri. pexe dafa bëri. bi dafa bëri. bés bi dafa bëri. piis bi dafa bëri. piis bi dafa bëri. lu nit mën a waajee rek. lu nit mën a waajee rek. am na. am na. soo ko ba pare nag. soo ko ba pare nag. bu la yàlla dimbaliwul dëgg. bu la yàlla dimbaliwul dëgg. da nga foog yaay bàyyi. nga foog ne yaay bàyyi. da laal loo xam ne sax waroo koo laal. da nga laal loo xam ne sax yow waroo koo laal. waaye ma nga leen di xoo te waxoon naa ne ko du beneen yoon. ne mu ngi xoo nañu ko fi beneen yoon. nit ñi fi teew ñëpp. ñi fi teew ñëpp. daanaka ay doom lañ. daanaka ay doom lañ. mag ñi dem nañ. mag ñi dem nañ. ku bëgg yomb. ku bëgg lu yomb. toppin bu baax. toppin bu baax. toppin bu rafet. toppin bu rafet. royal ci ki nga royal ci ki nga wuutu. yu mag yi yëpp. saabu yu mag yi topp nañ ko sellal nañ. topp nañ ko sellal nañ. waaye li ma wax léegi. waaye li muy wax léegi. ñun ñëpp bëgg nañ ko. ñun ñëpp bëgg nañu ko. waaye xam ngeen ne ñun ñëpp toppuñ ko. waaye xam ngeen ne ñun ñëpp toppuñu ko. te topp ko rek mooy jëriñ. te topp ko rek mooy jëriñ. ndax nit ku mu bëgg. ndax nit ku mu bëgg. daf ko war a topp. daf ko war a topp. ñun bëgg nañ Mawlana Cheikh Ibrahima. ñun bëgg nañ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. penku xarfu. penku xarfu. ndeyjoor ak càmmoñ. ndeyjoor ak càmmoñ. ñëpp bëgg nañ ko. ñëpp bëgg nañ ko. waaye nag fi mu ne nii. waaye nag fi mu ne nii. ku nekk nga seet sa yoon wa yaaw. ku nekk ngi seet sa yoon wooy xaw man Ibrahima nag na moom Ibrahima nag xamul lu mooy Mawlana Cheikh Ibrahima xamul dama bëgg ngeen ñëw ñu topp ko ne dafa bëgg ngeen ñëw ñu topp ko bàyyi li ngeen di def yëpp bàyyi li ngeen di def yëpp sànni ko ca gannaaw yi gannaaw sànni ko ca gannaaw yi gannaaw démb li xewoon démb li xewoon mooy sëriñ bu mel ni Mawlana Cheikh Ibrahima. mooy sëriñ bu mel ni Mawlana Cheikh Ibrahima. moom lañ topp. moom lañu topp. mu am xam-xam. mu am xam-xam. ci saahir ak baatin. ci saahir ak baatin. xam ba pare. xam ba pare. xàmmee. xàmmee. jël ay tabam taalibeem. yar ay taalibeem ñu déggal ko ñu déggal ko mu xàggale leen ci yàlla mu xàggale leen ci yàlla yëkkati leen ba ca kaw yëkkati leen ba ca ñu janoog maqaama yi ñu janoog maqaama yi janoog pays janoog pays dund ci moom dund ci moom dellu si dellu si di jaamu yàlla di jaamu yàlla te duñ ko sàkkal bokkaale te duñ ko sàkkal bokkaale moom moom wax ne. moom ci boppam moo wax ne. ki gën a tuuti ci sama taalibe yi. ki gën a tuuti ci samay taalibe yi. génn na ci bokkaale. génn na ci bokkaale. génn na ci bokkaale. génn na ci bokkaale. soo bëggee xam loolu nu mel. soo bëggee xam loolu nu mel. fexeel doon taalibeem la. fexeel doon taalibeem. ki mu waxoon ne moom mag ci taalibe yi. ki mu waxoon ne moom mag ci taalibe yi. muy Cheikh Serigne Baye Niass. toog na fii ngeen dégg ko. toog na fii ngeen dégg ko. mu ne. mu ne. ñaanal leen ma may taalibe. ñaanal leen ma may taalibe. ñun ñoo xamul luy taalibe. ñun ñoo xamul luy taalibe. moom mi moom wax ne. moom mi bàyyi wax ne. ci bopp taalibe yi. moo ne ci mu nañ ko ñaanal muy taalibe. mu ne nañ ko ñaanal muy taalibe. sëriñam wax ne. sëriñam wax ne. sëriñ Mbay moom taalibe taalibe la. ñun suñ bëggee xéwénal ñun suñ bëggee xéwénal dañ koy roy nañ koy roy yal nañu yàlla may loolu yal nañu yàlla may loolu yaa rabbi maa ngi leen di xoo ne mu ngi xoo sama bopp lay dalee ne ci boppam lay dalee ci taalib ci taalibe yi ci muqaddam ci muqaddam lu nekk ñu ngi koy def lu nekk ñu koy def fi mu ne. te moom xam naa ne noonu. te moom xam na ne demeewut noonu. sànni leen li ngeen di def seen gannaaw gannaaw. sànni leen li ngeen di def ci seen gannaaw gannaaw. benn bés. ne benn bés. yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dafa yónni benn saaba. dafa yónni benn saaba. jox ko laaya asaka. jox ko laaya asaka. na mu dem jëli asaka. ne mu dem jëli asaka ci ab dëkk ci ab dëkk mu dem mu dem ca dëkk ba ñu jox ko asaka yi ñu jox ko asaka baaxe ko baaxe ko baaxe ko maanaam may ko dara maanaam may ko dara mu ñëw mu ñëw xam naa dafa baax xam na dafa baax mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam lii yow lañ ko jox lii yow lañ ko jox lii man lañ ko jox lii man lañ ko jox yonent ne bilaal hotel yonent bi ne bilaal hotel dem ci jàkka ja dem ci jàkka ja bilaal hotel nodd bilaal hotel nodd ñëpp ñëw ñëpp ñëw mu ne yónni naa benn waay mu ne yónni naa benn waay asaka asaka mu dem dikk ne ma lii yow lañ ko jox lii man lañ ko jox mu dem dikk ne ko lii yow lañ ko jox lii man lañ ko jox. kon ku fi toogoon sa kër ndey ak sa kër baay. ku ku fi toogoon sa ndey ak sa baay. ndax dañ la fa fekk di la jox loolu. ndax yow danañ la fa fekk di la jox loolu. gannaaw tey. gannaaw si tey. moo yónnee ci kenn muy def bu ma yónnee ci kenn muy def loolu. gis naa ko ci jamono bii. gi sëriñ bi ne gis na ko nag ci jamono jii. gis naa ci bii. gis na ci jamono jii. koo xam ne. koo xam ne. dafa tudd muqaddam dafa tudd muqaddam suñ ne siyaare jot na suñ ne siyaare jot na mu ubbi compte mu ubbi compte xamut kañ la ko ubbi xamut kañ la ko ubbi ñi aju ci moom di jaaree ci compte boobu ñi aju ci moom di jaaree ci compte boobu ne seen siyaare lañu indi ne seen siyaare lañu indi def ci lu bari def ci lu bari moom ci boppam moom ci boppam mu dajale loolu. mu dajale loolu. jël ci benn million. jël ci benn million. ne moom la ko joxe ne moom la ko joxe addiya. addiya. ñu di ko yéem. ñu di ko yéem. ku di ko xéem. ma ñu di ko xéem. ñu di ko xéem. dañoo xamut. dañoo dañoo xamut. suñ xamoon. suñ xamoon. danañ xam ne lim téye. danañ xam ne lim téye. te Maolana Cheikh Ibrahim moo ko moom. te Maolana Cheikh Ibrahim moo ko moom. bon du ñu loolu. bon duñ wax loolu. bon duñ wax loolu. gis naa itam muqaddam yoo xam ne. ne gis na itam muqaddam yoo xam ne. li ma gis ñu di ko def. li mu gis ñu di ma gis ko def. ne li mu gis ñu di ko def. mooy. mooy. ne na ne bu ne bon toog. taal dafay toog. dafay toog. dafay toog. kii laa. waaw mu ngi toog. na toog na. ne bi loolu xamee. muqaddam boobu. àgg na ci xeewwaat yi xeewwaat yi ñàkk xeewu ñàkk xeewu taalibe mi topp ko taalibe topp ko ñu ci ko sikkaral ñu di ko sikkaral ci biir Medina ci biir Medina dafa xamut dafa xamut mosuma gis sëriñ Mbaye def ko ne mos ta gis sëriñ Mbaye def ko mosuma gis sëriñ Aliou def ko mun a mos a gis Serigne Aliou def ko. Cheikh Omar Touré. mun a mos gis Cheikh Omar def ko. Cheikh Ibra Fall. mun a mos a gis sa Ibra Fall def ko. Taïba Niassène. mun a mos a gis. waa Taïba Niassène def ko waa Taïba def ko. sëñ Ousmane Ousmane gis mu def ko. mun a mos a gis sëñ Ousmane Ndiaye def ko. kenn ci muqaddam yi bàyyi mos a def loolu. ci muqaddam yi bàyyi mos a def loolu. moom mu ñëw taalibe yi ñu ne yi topp moom mu ñëw fii ci dëkk bi taalibe yi topp ko di ko sikkaral tekki di ko sikkaral tekki dafa xamut dafa xamut bu xamoon du ko def bu xamoon ne du ko def naa ngi koy laaxe biir ne mu koy laaxe biir waxoon naa fii ne ne waxoon na fii ne déeg janji te réewut am mbayeef déeg janji te réewut am mbayeef déeg janji déeg janji te réewut am mbayeef terewut a xam mbayeef di bàyyi ba jub janj bàyyi ba jub jànj wër ko wër ko terewut nga xam mbayeef terewut nga xam mbayeef péyeb baay bi wëccee leen ko bàyyi péyeb baay bii wëccee leen ko bàyyi du mu xadam du mu xadam ak ku mën a dox ak ku mën a dox wëccee leen ko Mawlana Cheikh Ibrahim wëccee leen ko Ibrahim radiyallahu anhu ñun ñëpp nañ ko wëccee ñun ñëpp nañ ko ko wëccee bu kenn xam programme bu kenn xam programme oote. oote. ñu di la defal programme ci Medina. ñu di la defal programme ci Medina. man de du ko def. ne moom day du ko def. Cheikh Serigne Mbaye Niass du ko def. Cheikh Serigne du ko def. saa muqaddam yu yi kenn mosu koo yu mag yi kenn mosu koo def. baleen loolu. baleen loolu. Medina itam. ne Medina itam. mooy suñu dëkkuwaay. mooy suñu dëkkuwaay. suñ lépp fi la nekk. suñ lépp fi la ci la barke bi nekk. fi la bi ne. fi la ndigal li nekk. fi la ndigal li ne. fi la ngërëm li nekk. fi la ngërëm li ne. fi la yéegukaay yi nekk. fi la yéegukaay yi ne. fi la jegeekaay yi nekk. fi la jeegukaay yi nekk. jege. fi la jegeekaay yi nekk. da xam loolu. ngeen xam loolu. su Medina amee soxla. su Medina amee soxla. dajee Dakar. dajee Dakar. man de man de su ma doon def noonu. moom day su doon du def loolu. dajee Dakar. dajee Dakar. amul benn njëriñ pour yéen. amul benn njëriñ pour yéen. du jëriñ dara. du jëriñ dara. te dafay tax ñu xeeb leen ci. te dafay tax ñu xeeb leen ci. koo xam ne yow la yaakaaroon. koo xam ne yow la yaakaaroon. yow lay dimbandiku. yow lay dimbandikoo. yow nga dem fekki ko. yow nga dem fekki ko. di ko dimbandikoo. di ko dimbandikoo. amul njëriñ. amul njëriñ. bu leen ko defati. bu leen ko defati. bépp nit bu am soxla ci dëkk bii. bépp nit bu am soxla ci dëkk bii. mbaaram nga tax sax. mbaaram nga tax sax. nga dajee ca xoote. nga dajee ca xoote. waaye mu nga ca moom mu nga tudd Madina. waaye moom mu nga. mbaar ma ma nga ci biir Madina. fekk mbaar ma mu nga ca biir Madina. loolu moo ëpp solo. loolu moo ëpp solo. dem ay dakaar dem ay Dakar. di dal ci ay hôtel. di dal ci ay hôtel. man su ma doon yéen du ma def noonu. ne moom su doon yéen du ma noonu. yàlla rek lañu yàlla la ñuy wëccee Medina Baye. yàlla la ñuy wëccee Medina Baye. suñ ko defoon. suñu ko defoon. dana am njëriñ de. dana am njëriñ de. maa leen ko wax nag ngir yàlla rek. ne mu ngi ñu koy wax nag ngir yàlla rek. utuma ci dara. utut ci dara. su ma sañoon sax. bu sañoon sax. ci tribune bii ngeen di rafetal. ci tribune bii ngeen di rafetal. mu mel ni. ku woote mitin mu mel ne ku woote mitin su ma sañoon ñu toj ko bu sañoon ñu toj ko mu ne fang mu ne fang jàkk nga jënoog jàkka ji nga jënoog jàkka ji jënoog néegu baay jënoog néegi baay ñu ubbi néeg baay mu ubbi néeg baay te duhut tey ko tey la ko wax de dëkk ci ki koy dëkkee dëkk ci loolu moo ëpp wegeel moo ëpp wegeel moo ëpp lu mu ne moo ëpp lu ne def leen ko. def leen man na yàlla laa koy ñaan fi mu ne. ne yàlla la koy ñaan fi mu ne. donc may jalal jàng téeméeri kaamil. ne daf ko jaral mu jàng téeméeri kaamil. mu wax wax yàlla ne ko. wax yàlla ne ko. na taalibe yëpp dellu si Medina. na taalibe yëpp dellu si Medina. ñu bàyyi li ñuy def. ñu bàyyi li ñuy def. bàyyi li ñuy gént. bàyyi li ñuy gént. foog. bàyyi li ñuy foog. topp ci bàyyi. topp ci bàyyi. bu ngeen ko defee. boo leen ko defee. dana jëriñ. dana jëriñ. moom rekk nag moo xam yoon wi. ne moom rekk nag moo xam yoon wi. bàyyi leen def. bàyyi leen li di def. kaay leen ñu topp baay. kaay leen ñu topp baay. man loolu laa xam. ne moom loolu la xam. su gàmmu jotee sax dégg naa. su gàmmu jotee sax ne dégg na. ay mbooloo dañuy def cuuñ cuuñ. ay mbooloo dañuy def cuuñ cuuñ. dañuy sikar dañuy daayira xaw ma lan. dañuy sikar dañuy daayira fekk du noonu. waaye li ko def nag. li ko def nag. dañoo gàmmuwut. dañoo gàmmuwut. su fekkoon ne ci onze su fekkoon ne ci onze ñu lal gàmmu gi. ñu lal gàmmu gi. di jàng di firi. di jàng di firi. ba bët set. ba bët set. ñu ñaanal taalibe ñu dem. ñu ñaanal taalibe ñu dem. loolu du xam loolu du am. man nag. ne moom nag. lii may wax nii. lii muy wax nii. fayu ma ci bor. fayut ci bor. leblewu ma ci bor. lépp lépp la wu ci bor. yàlla rek bay. yàlla rek. bàyyi ñëw bëgg ñëw kër ma jël. mu ne bi bàyyi bëggee ñëw kër ma jëbal. wax naa ko daaw fii. ne wax na ko daaw fii. daf ma ne. daf ko ne. maa fi ñëw munu ne moo fi ñëwoon mu ne ko. demal nga ne sëriñ Aliou ne ko. demal nga ne sëriñ ne ko. mu jàpp bés ñu dem kër ma jëbal. mu jàpp bés ñu dem kër ma jëbal. ñu dem ma ci sëriñ Aliou. mu dem ci sëriñ Aliou wax ko ko. mu jàpp bés. mu jàpp bés. ma ñëw ne ko bés sàngam la. mu ñëw ne ko bés sàngam la. mu ne demal nga ne ko. mu ne ko demal nga ne ko. boobu bés du bésab taalibe. booba bés du bésab taalibe. na jàpp àllarba. na jàpp àllarba. mu sëriñ Aliou wax nga sëriñ Aliou nangu. sëriñ Aliou nangu. bés ba ñëw. ba àllarba ñëw. moom mu jóg ànd ak sëriñ Aliou. moom mu jóg ànd ak sëriñ Aliou. ak taalibe ak taalibe yi. ànd ak Aliou Diagne. ànd ak Aliou Diagne. ñëw joxe ndigal. ñëw joxe ndigal. keroog la ma jox ndigal. ne keroog la ko jox ndigal. dëhal ma yu bëri. dëhal ma ñu bëri. ñaanal ko. waaye xam xam nga lu tax. Cheikh Serigne Baye Niass. Cheikh Serigne Baye Niass. moom la waxoon ne mooy taalibeem bu njëkk. moom la waxoon ne mooy taalibeem bu njëkk. kuy weddi nag bàyyi mooy ngay weddi. ku weddi nag bàyyi ngay weddi. jox ma ndigal jox ko ndigal. looloo tax li ngeen di dégg ma di ko wax. looloo tax li ngeen di dégg mu di ko wax. ma di ko wax. mu di ko wax. bëgg naa pay bi ñoŋ. ne bëgg na pay bi ñoŋ. bëgg naa ñu wàccee ko baay. bëgg na ñu wàccee ko baay. bëgg naa ñëpp maggal baay. bëgg na ñëpp màggal baay. bëgg naa ñu denc li ñuy wax. bëgg nañu denc li ñuy wax. bëgg naa ñu denc li ñuy géwént. bëgg nañu denc li ñuy gént. bëgg naa ñuy dindi li ñuy foog te xamut. bëgg nañuy dindi li ñuy foog te xamut. Mawlana moo fi nekk. Mawlana Cheikh Ibrahima fi nekk. ak ku mën a ak ku doon. topp ko. topp ko. ñu topp la. ñu topp la. toppoo ko. toppoo ko. soof ni ñi. soof nit ñi. maa ngi leen di na mu ñuy dénk. maa ngi jàllale wax yi. maa ngi jeexal sama wax ji. ne mu waxam ji ci. ndax fi mu ne màggat laa. ndax fi mu ne màggat laa. wax ji sax mu may sonal. ne wax ji sax mu ngi koy sonal. waaye. waaye. olof wax na benn baat. olof wax na benn baat. maa bëgg ngeen déglu ko. dafa bëgg ngeen déglu ko. olof mu ne. olof mu ne. nit soo ko négee ci la mu bëgg. nit. soo ko negee ca lam bëgg nit du la fa fekk nit du la fa fekk dof moo la fay fekk dof moo la fay fekk loolu mooy loolu mooy man dama bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim moom dafa bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim ba xawma leneen lu mooy moom ba xamut leneen lu mooy moom dégluwuma leneen lu mooy moom dégluwut leneen lu dut moom soo ma ci soo ma jégalul na soo ko jéggalut nag. jàppee ma loolu. jàppee ko loolu. dana wax ne dof laa. dañuy wax ne dof la. fekk rek bëgg rek la. fekk mbëggeel rek la. ñëw leen ñu topp baay. ñëw leen ñu topp ci baay. buñ ko defut. buñ ko defut. dañuy tardé. dañuy tardé. maa ngi fi doon wax sax ne. ne mu fi doon wax sax ne. baay dafa toog ñun ci fii ci Medina. baay dafa toog ak ñoom fii ci Medina. wax ne. wax ne. na ngeen taxawal. ansaaru diin. na ngeen taxawal ansaaru diin. te na ngeen def congrès par at. te na ngeen def congrès par at. man de maa ngi wax ne su ma sañoon. ne moom day mu ngi wax su sañoon. 22 janvier bi mu bindoon bi. 22. 22 Saabaan. 20. 22 Saabaan. 22 Saabaan bi mu bindoon bi. su ñu def am congrès bi. bu sañoon ñu def ci congrès bi. moom la taalibe yëpp di déglu. moom la taalibe yëpp di déglu. te moo ëpp mboolem nguur yi. te moo ëpp mboolem nguur yi. nit koo xam ne. nit koo xam ne. téeméeri million mun na topp. téeméeri million mu ngi la topp. ak juróom-ñetti fukk. ak juróom-ñetti fukk. bindukat yi wax nañ loolu. bindukat yi wax nañ loolu. bindukat yi wax nañ loolu. ku nekk ci sa gannaaw. ñi nekk ci sa gannaaw. kuñ nekk ci sa gannaaw. duñ nekk ci sa gannaaw. kuñ nekk ci sa gannaaw. mën ngaa doylu. mën ngaa doylu te man de dama fasoon ne te moom de dafa fasoone ku fi mos a wax nag ñaar téeméer ku fi mos a wax nag ñaar téeméer ci man nga ko déggee ci moom nga ko déggee fanweeri xat ak juróom fanweeri xat ak juróom maa ngi wax ne nañ def li bàyyi wax mu ngi wax ne nañ def li bàyyi wax bind naa téere bind na téere wax naa wax na def na lu ne def na lu ne te li ma wóor te li ko wóor ñetti weer ci kanam nii ñetti weer ci kanam nii suñ defoon loolu baay wax suñ defoon loolu baay wax muqadam yi dajee muqadam yi dajee ñu fal benn waay ñu fal benn waay ne kii mooy président bi ne mooy président bi ne mooy secrétaire bi ne kii mooy secrétaire bi ñaan yi ñoo leen dimbale ñaan ñii ñoo leen di dimbale ñu ubbi benn compte ñu ubbi benn compte benn taalibe bu nekk benn bopp taalibe bu nekk ñaari simili joxe ñaari téeméer. ñu jàpp congrès bi. ñu jàpp congrès bi. balaa ñëw. balaa ñëw. téeméeri milliards dana fi daje. téeméeri milliards dana fi daje. amul benn sikk ci loolu. amul benn sikk ci loolu. maa ngi nag ñaan. ne mu ñuy ñaan. fi mu ne ñaan mu ko kenn kat. ne fi mu ne nag ko kenn kat. waxuma kenn. waxut kenn. dimbali ko wuma kenn. ne dimbali ko wuta kenn. sama bëgg-bëgg ci baay. bëgg-bëggam ci baay. sama ngëm ci baay. ngëm-ngëmam ci baay. maqaamam ci baay. maqaamam ci baay. ak darajaam. ak darajaam. ak jege yàllaam. ak jege yàllaam. moo tax may wax. moo tax muy wax. yàlla yow laay ñaan. ne yàlla yow laay ñaan. suñu sëriñ a ngi jox nañu ndigal jox nañu ndigal bind na ko bind na ko xolof wax nañ ko ci xolof wax nañ ko ci xolof man maa ngi ci bopp taalibe yi ne moom mu ngi ci bopp taalibe yi ci ndigalal baay ci ndigalal baay te ñëpp xam nañ loolu te ñëpp xam nañ loolu suñu ko defeen suñu ko defoon téeméeri milliard léegi daje téeméeri milliard léegi daje xaw fu mu koy def fu ñu koy def bon. xaw ma ñu koy def bon. xaw ma fuñ koy def bon. aw ma sikk ne. amul sikk ne. loolu dana fi daje. loolu dana fi daje. te danañ màggal ki ko def. te danañ màggal ki ko def. te danañ ko bëgg. te danañ ko bëgg. danañ ko hóolu. te danañ ko hóolu. te danañ ko topp. te danañ ko topp. benn pal ma sa toll noonu. benn. pal. pal ma sa toll noonu. ma sa toll noonu. jiitu. jiitu. téeméeri million nekk ci sa gannaaw. téeméeri million nekk ci sa gannaaw. ak juróom-ñett fukk. ak juróom-ñett fukk. loo wax ñu def ko. loo wax ñu def ko. loo bëgg xam. loo bëgg mu xam. koo jub mu mu mu mu mu daanu mu ci suuf. ci suuf. kooku bàyyi rek ko mën a yàq. kooku bàyyi rek moo ko xam. yéen taalibe yi. yéen taalibe yi. nit ak jinne laa wax. nit ak jinne. fii lañ la wax fii lañ taxawoon. fii lañ taxawoon. benn xat. benn xat. ci mbaar mi. ci mbaar mi taalibe yi jinne yi ñëw di jaayante taalibe yi jinne yi ñëw di jaayante keroog benn baañ benn paan lañ fi taaj keroog benn paan lañ fi taaj def ci ndox def ci ndox jinne yi lañ doon topp jinne yi lañ doon topp ci lañ doon topp ci lañ doon topp man naa ngi leen di xoo ne moom mu ngi leen di xoo Alaaji Abdoulaye santaan naa ko liggéey Alaaji Abdoulaye sant na ko liggéey ca Taïba ca Taïba ma ma sant ko jinne yi mu sant ko jinne yi balaa ñoo xam ne balaa nga xam ne ñoom ñu ngi fi. balaa nga xam ne ñoom ñu ngi fi. dañoo jub benn place. dañoo jub benn place. fekk ñu góob ko ba mu jeex. fekk ñu góob ko ba mu jeex. taalibe jinne yi la. taalibe jinne yi la. ba Alaaji Abdoulaye bu waxee ne. Alaaji Abdoulaye bu waxee ne. mbooloo mi ma gis tey. mbooloo mi ma gis tey. gëj naa ko gis ci kër ma ne ko man maa leen ko sant. mu ne jinne yi ci ñëw nañ. jinne yi ñëw nañ. ma wax ko ne misaal mi misul loolu. maa ko ne misaal mi mooy fuñ góob te doo doo gis ko ñu góob. maa ne misaal koy góob waaw. ko. te ñax mi. ñax mi. bat gattax gi. wala gattax gi. faj ko. bëgguma ñu faj ko. ndax bëri taalibe yi. ndax bëri taalibe yi. xamuñ bàyyi. xamuñ bàyyi. suñ ko xamoon. suñ ko xamoon. maa ngi gën ci yàlla ne. da mu ngi gën ci yàlla ne. duñ génn Medina. duñ génn Medina. te dara du manqué. te dara du manqué. ñëpp danañ leen topp. ñëpp danañ leen topp. nit ak ginne. nit ak ginne. bàyyi ma ak yent yent. bàyyi ma ak yent yent. ak jamaat. ak jamaat. ñëppay dikk. ñëppay dikk. ñëppay dikk. ñëppay dikk. ñëppay dikk. ñëppay dikk. salaatullahi thumma salaamu fa